أجمعين الحمد لله الحمد لله الحمد لله spécial rentrée des classes ah ou école bi c'est une une société CIPEX, une société industrielle papeterie express pour Sénégal une équipe dynamique te qualifiée à 100 pour Sénégalais, jeunes sénégalais ces machines machine industrielle de la haute technologie Dylan proposer la superbe gamme de cahiers Espoir en couverture plastique et en couverture cartonnée la CIPEX lance le cahier Teranga en couverture plastique et en couverture cartonnée avec une promotion exceptionnelle la CIPEX lance cette année Kayeteranga à promotion Boumouchaï. le paquet de 200 pages avec les 5 pièces à 1400 francs Li Sénégal le paquet de 100 pages avec 10 pièces à 1400 francs Mustam Sénégal stock limité une promotion disponible en couverture plastique 60 grammes et 80 grammes suñuy boutique agréée librairie papeterie Mohamed Bourguiba LPM Sandaga LPM color LPM KAULAK, LPM TILEN, LPM KURMASAR, Hello Partenaires, GBIS Mou, GBIS KAULAK, LPM Bount, centre commercial Al Maktoum la CIPEX et la LPM toujours au service du social les commerçants et les parents d'élèves nous vous proposons des produits de qualité supérieure à petit prix avec le cahier Teranga la qualité saute aux yeux des prix exceptionnels en carton sont prévus pour vous les commerçants et grossistes pour tout renseignement renseignements, contactez-nous au 77 633 21 24 ou le 77 571 07 02 dañuy jëflante ak mairie yi dañuy jëflante ak municipalité yi ak ministère, yi ak ñi nga xam bonne volonté yi bëgg a ci jang pour xalé yi ngeen ñew ñu jox leen ay cahier ci ay njëkk yu yomb ngeen dimbali xalé yi ndax éducation moy defar réew قدره وصليا يا إلهي وزينا أبدا عنا محمدا المختار في القدم الحمد لله ذي الإيجاد والقدم ممتنا بوجود البدر في القدم وصليا يا إلهي يا أبدا عنا محمدا المختار في قدمي ثم الصلاة وتسليم يفوق على مسك ورا بالعلا بالفضل والقدم صليا يا إلهي مختار في القدم وآل المهتدين لخيرة الكرماء المتميسرة المختار والقدم وصلي يا إلهي وزينا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم ورقة وتنحبنا لها وجرى بفر من القلم وصليا يا إلهي وديانا أبدا عنا محمدا المختار في القدم وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبان من نوره نور النبي العالمين وصليت إذ أراد الله نشأتنا أبانا من نوره نور النبي العالمين ne كنك kon nag ne sunu maam Cheikh Seydi Hadji Malick sunu sëriñ ne bëgg jàng na lépp koo xam ni kii bëgg nga xam xam jàng gëstuwaat na moom Cheikh Sidi Hadj Malick téere mag ñëpp ca jamono yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ci moom jamono ji ko yàlla indee fii ci àdduna ne comme moom yàlla ne yéen na ngeen roy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maam moom jàng ba noppi fu ab sëriñ nekk ca fuuta di boroom xam-xam nag bu ñu seereel xam-xamam moom Cheikh Sidi Hadj Malick sukk na ci sa kanam tarbiyu na la jàng na ba yàlla xamal ko la ca sëriñ ba mooy wolof yeeg kazalika naar yi it waa dawaali kazalika ni ñibbi si nag gaaya yaayam na ko njàng mi doyagul dellul waaye xoolal jigéen ju baax ndey ju bëgg a defar jamono jaare ko ci lu ko yàlla sarax muy njaboot mel na lisaanu xaalam moom maam fa wadd mooy ni yàlla melale ibaadu rahman mu mel na nag la ca tolloog bëgg-bëggu maam Fawad te mu ñaan ko yàlla mooy lan rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin wa jaalna lilmuttaqina imaman moo tax yàlla baaxe ñu Cheikh Seydi Hadji Malick يمنعكم من لي جبريكم والي آه. قلب الدين تبي منصرنا فرض آه. على الابن شكر الوالدين ما والد البر آه. يا استاذ سلمى حمد على لابني شكر الوالدين تمام موضوع والد البر يا أستاذ زنديد لسان حال الله ما زال يمدحكم ولي جبريكم والي أه. قلب الدين محمد منشرنا فرد على الابن شكر والدين مولى والد البر يا أستاذ سنين الجنابي وأور الكنارة على المساكين للأيتام محمد منصورنا فرد على الابن وشكر الوالدين موضوع والد البر يا استاذ سنديدا زينت سنة ومن لولاهما ما برزت شمس النهار ولا بدر محمد منصورنا زينت سلطه من لولاه ما برزت شمس ناري لا بدر ولا هدى أرفل في أثواب أنعمكم من والعيش في رغد والجب على جبالنا زادلت أرفل والفلفل في أزواجه أنعمكم والحي برهقه منصور جد بتبايمنا ما زلت أرفض في أزواجه أنعمكم ولو يعيشوا في رغد والجد محمود ما زلت أرفض وفي أزواجه والجوب راد وجه محمد منصورنا روى بعد ما غبت وجه الدار منبسط لنا بفيدك والتيسير مسرورنا وبعد ما غبت وجه الدار منبسط لنا بفيدك فاصبر محمود لنا بفيدك بفيدك محمد منصور لنا بفيدك والتيسير مسرور لنا بفيدك بفيدك محمد منصور لنا بفيدك والتيسير العاد منصور لنا بفيدك خليفة بايمنا لنا بفيدك والتيسير مسرورنا لنا بفيدك والتيسير مسرورا إن لم تكن لي فمن يكون يا سندي لنا فزيدوا لنا من فضلكم زيدوا لنا بفيدك بفيدك الحمد لنا بفيدك وتيسير القوم لنا فزيدوا لنا من فضلكم زيدوا لنا فبما يمنى لنا بفيدك والتيسير مسرور مولانا فزيدوا لنا من فضلكم زيدوا لنا بفيدك والتيسير مسرور فزيدوا لنا من فضلكم زيدوا لنا بفيدك لنا بفيدك والتيسير محمد منصورنا لنا فزيدو لنا من فضلكم زيدو لنا بفيدك والتيسير منصور